góor gi tële nag li nga xam ne moo xew fi mu toll nii ci àdduna yàq ci man. yemoo ceeb ku yàlla bind. dëgg la Cheikh Ibrahima Keïta. li. waaw dañuy faj rek. wala ñuy faj jinne di ko mbot di ko dóor ñu koy def pour wante moom da lay xool wér. mbokk yi borom xam-xam bu mag bi kat ñëw na di Serigne Cheikh Ibrahima Keita mi nga xam ni mooy sëtu Soundiata Keita xam-xamam màcc mu donn ko ci ay maamam ñëw na Ndakaaru te ma nga ca deux voies liberté si rond point ginnaaw boo weesoo camp pénal li muy faj bare na ku ami rab da koy faj képp koo xam dañ laa liggéey demal ca moom ku bëgg bayre moo xam nga bëgg a siiw demal ca moom. kuy wut ay këyit mu jafale ci wàllu tukki mën na ko lii ne moo di ku tële di góor ci wàllu sëy mën na ko jigéen joo xamee dooma la të mën na ko góor goo xamante ni dangaa bëgg am soxna wala soxna ju bëgg am jëkkër kii di Serigne Cheikh Ibrahima Keita moo ci gaaw mbokk yi dama ni képp koo xamante ni place ba nga ne dangaa yaakaar ni dañ la faa bëgg a jëlee dawal gaar nga seeti Serigne Cheikh Ibrahima Keita di tradipraticien bu mag doon ko ci ay maamam Soundiata Keita roi du Mandeng mbokk yi numéro téléphone bi 77 664 92 92 76 136 78 30 70 xam-xam baa ngi noonu di Cheikh Ibrahima Keita loo fa indi bu neexee yàlla mu faj ko. xam nga Ibrahima Keita yow mooy borom ninki nanka yi. dafa xamul daal wax la leeral ñu ñoo ko moom. dañoo dem ba YouTube. Cheikh Ibrahima Keita bindal ñu kayit boo xamante ni. suñu émission la. ñun suñu émission ñun ñoo ko moomal suñu bopp. Uh-huh. leeral moom maag amete ko moom ak Saliou. boobu leer na nañ. Uh-huh. waaye di bëgg ñoo. <coughs> bili bantaay ay kurti kartaan ay fuubiyee ah. yoo deful uh-huh. dégg nga saa waay xamal li la waxul bu dof nekkal nit nekkal nit <laughs> nekkal nit parce que cagay cagay ngay dugal foofu ñaan dañuy saaga di naan dañuy dox buñ waaw bu ñëwoon di ko bàyyi. xam nañ ni mu demee de. xanaa laaj ma am kat bi bari tuddee mondial bu mu mm. la fi gëj ci sàccoon ñaari xarit. Mm. wala ngaa mm. wax li lay wax doxal yow ci biir taawon bi. amoon jom dina gis nañuy gis doo ñu mun dara. amoon jom amoon jom ñun soxla wuñ la. Ah. ah ñoo gëm sa kër. dëgg la ndax koy ñu. wallaahi. ndax ànd bu yàgg dëgg la. sa ànd baaxul. te doo nit ku baax doo nit ku baax. yow bu yëg yow yow nekkal fii di dóor yoroo yi Sénégal nag yéen laa waxal sax yoroo ko toog di yàq der. yéen Sénégal yi yéen laay waxal. avec wayaan bu metti gi mu mu nekkee. ak xëcc nit. ay deux millions cent millions yooyu lekk yi ngeen di lekk nag na ngeen ko wàññi. kër goo leen dugg di fa lekk. luy lekk si lekk yow doon ko xam. sa wax naa leen nag. man moom li may wax dama ko xam. ndeysaan yow comprendre ngeen. du du dara. amul jinne amul dara. xam na la yaakaar. fétis te fétisam sax baaxul. dëgg la. fétis lay def. daraam doxul. daraam doxul. bu fekkoon mun na dara. kon ñun duñ fi toog. di wax mais sëñ bi. te ñun soxla wuñ ko. ñu mu ñu mu ñu ñu ñëw si. ñu ñëw si këram nag. Mm-hmm. am maanaam ñooñu di jóge si këram di ñëwaat di ko lekk di ko wàccaat. Mm-hmm. ñun bokk ñu si. am na ay doom góor lañu. am na dërëtu góor mooy daw suñu yaram. Mm-hmm. am man de dërëtu góor mooy daw sama yaram. man du ma lekk. wàcc ko. ci baat ko lekk ko. dëgg la am sama moom dafa mus a wax dara. Mhm. nee na ma gone ak mag ñoo yem bu ñuy yéeg ci kaw daqaar yi kenn du leen mhm. waaye bu ñu daanoo ci kàddu gi ñëpp a koy tey da ngaa daanu. ndeysaan macha allah Ablaye nga ne ko waxaat waxaat sama maam dafa ne gone ak mag ñoo uh-huh. Uh-huh. bu ñuy yéeg kenn du leen dégg. Uh-huh. waaye bu ñu daanoo ci gi ñëpp a koy <laughs> te yow tuuti fu ne da ngaa daanu. ndeysaan te nga bàyyi tege naa féqi. gis nga sàcc yi nga sobe biñ sax doo sax boo xëyee jël sa jabar sax boo xëyee da nga war da nga war a sax. set sangu set sobe baaxul. dëgg la da lay tëj. da ngay kànnaar sa bopp loolu baaxul. sa léppay taxaw. ñu dañuy wax ak yow dafa nekk ci Sepako xam nga Sepako bul dof en face arméria <laughs> kon maa ngi lay gis ma dara dawal sama moto du ma dawal guddi. dëgg la ñoom moto yooyu ay moto. <laughs> ñun ay moto la ñu jëndal. waaw waaw wax dëgg yàlla dañu toog lu ñu neex. ñu fekk iPhone nañ ci ay mission. ñu ñoo nekk am iPhone. wax dëgg yàlla iPhone moom ñu ñoo la ko njëkk a am. nga desee ba ñu koy jëndal du tey. wallaahi fii taxaw fi publicité ko ñun ñëpp teg ko suñu kanam. dëgg la est-ce que yaa ngi comprendre da ngay gëm sa bopp xam ni laaj bi jeexagul. Oh da ko waatal ñëwal jébalu. non est-ce que yaa ngi comprendre da ngay ñëw jébalu. à ah, mon part man j'ai pas besoin que muy jébalu. man soxla wu ma lool. xam nga Cheikh Ibrahima Keita mu ngi liggéey li muy liggéey di ko teg ci temps di faj nit ñi ñu am li muy am àdduna ñëpp yaakaar ko Sénégal ñëpp xam ne kii mooy dëgg wax dëgg yàlla parce que Ameth Ameth am na loo xam ne foog ñu wax ci ak gis nga nit. voilà nit mënoo faj cinquante mille personnes ñëpp à la même tour. mënoo faj cinquante mille personnes. ñëpp nga ne ay jinne ñoo leen jàpp jinne loolu mënta nekk. loolu bi nga ñaanal wax dëgg yàlla mais mënoo ñu rey di ñu tympaniser ak ay jinne jinne jinne sëñ bi ku toog mënu la dem su sax nga ne jinne ku toog mënu la waay waay bu ñu taxaw wax waaye sëñ bi xam ba pare soxor ak xol bu bon weesuwul nga toog naan ñun sa sa tur wala sa image dañuy utiliser sur sa YouTube pour nit ñu seetaan billaahi wallaahi wal bi dugg leen na àdduna dugg suñu YouTube lu amee image bu ñu mës a utiliser photom wala turam dugg suñu YouTube billaahi wallaahi wal dañ on a pas musul donc yow doo nit kuy wax dëgg te kilifa du toog naan kilifa laa Cheikh Ibrahima Keita du toog nag. mais kilifa la déedéet. dalu ko dëgg ko Keita billahi wallahi yow yaay kilifa. te boo duggee ci kër gi xam ne kilifa boo. un ingrat c'est moi qui le dis man Saliou maa ko waxati. Saliou doog ingrat nga yow doo dara. bëri dem seex bi nee na ma. billahi wallahi ak sama bakkanu njabar. guddi yi ñu toll nii amul kenn ku ma mën. wallahi non lu leer la lu leer la. ne ma allah ma ne ma. billahi wallahi dëgg la fii dëgg la li Sénégal bi muy man de Seydou Lass man Seydou Lass Mouhamed. man dama ko gis fii ñaata la fi nit ñëw. en ah, salle ñaata la fi ñëw ñu. bëri dama am problème mu rab. fële laa jóge. fële laa ñu lekk ma ñu lekk ma. ana dama am problème mu jëkkër fële laa yaayu Yunus. ana ki ñu doon yëndoo ci garab foofu. bëri na ana kii uh, ki uh, doon ak bëri. ki ki dem foofu jëlee foofu. ana ki ñu ko doon tëddee ñu ko ne ñu naan kaan yow jinne bi nekk yow. waaw jinne sobe la foofu ñu sëy yow. waaw yamal xam naa soo dina jël ñaar yow doo yow li nga xamal billa bu nga waxee nga ni kilifa nga yow doo kilifa kilifa mu kilifa mu am nga naan kilifa mu xol bu bon yow muy aku waaw yow am nga bon bon jëru ngay yow man jom amal jom non du dara ki ngay ki ngay ki ngay bëgg def morom du sa morom du sa wax na ma ko morom du sa mappal amet amet taxawal wax la yow fekkee nga ma fekkee ablaay fekkee cheikh ibrahima kay taxaw tuuti fuuta taxaw wallahi mu ne ko duma sa morom yow am na sikir xool ma du ma sa morom doo waral billahi wallahi xool amul fitu sikir xool Cheikh Ibrahima Keita gëmal yàlla boo toogee ci Cheikh Ibrahima Keita wala ci ñun dama fekk caméra moo la tiim ak écran mais yow amoo fitu tiim ñu di waral billahi wallahi bu ñu wàccee caméra yi wax ñu duma la billahi wallahi wal kitaab ñoo la mën ci zaahir ñoo la mën ci baatin ça n'est rien encore loolu tout ça ça ah. moom daa jël boppam daa la ko YouTube ko ah. jombe ah, waxal jombi moo tax mu tay la boppam ci ah. YouTube bi. Ah. ñun defuñu loolu. Ah. ñu dañuy liggéey. YouTube bi mooy la ma ak kuy toog ci YouTube bi di wax. bokkul moom it Cheikh Ibrahima Kane toogoon ci YouTube bi rek di àndal ak di wax. non non amul sa wax jooju la ñu bëgg nga tëj ko nga tëj tëj muuta ki muuta la xam nga muuta. du yow xam nga xam nga lii muuta. te jël sa muuta gi. sa muuta gi. dañu bëgg nga ni ko ràpp tëj. wallaahi ko. tëj ko. ndax yaakaar naa ne ndax li ngay wax sa gémmiñ xeeñ na. Uh-huh. setoo. setoo tilim nga. tilim nga doo jàpp doo sangu. jigéen boo am mu dem. wax dëgg yàlla parce que sa sàkkee daa gàtt. waaye déglu li ñu waa yow. kii bi nu mu tudd. waaye bu ma wax ah, dëkk bi ñuy yokkalee. non ah dëkk ba dëkk ba. waaw kii ginnaaw gees la de. gesam gesam gesam gesam. ku war a dem dama gesam. dama bi. Uh-huh. mais desat bi. Uh-huh. mu ngi may woo. Uh-huh. naa la booleeg moom. ginnaaw kees la nekk naa la booleeg moom ginnaaw kees. demal yow bi wax dëgg ko. loo mu dem nga jël leneen mu dem amul sens sëñ bi. xale jigéen ñeen ñu fay dem sax yéen a gën a. nee la lii bëgg koy dévoiler. ndax baaxul. santul yàlla. mën na yéen ñu fay dellu nag. yéen ñu fa nekkoon. dañoo ñàkk jom rek. am leen jom am leen xam leen ni mm-hmm. yàlla mooy maye mm-hmm. mooy xañi mm-hmm. kooku du yàlla du yënant du dara du dara place yàlla bu mu bëgg a teg boppam nag yéen waa Sénégal yéen laay waxal dégg ngeen bu baax fu muy waxee uh-huh. nee na toog di fen bu toogee uh-huh. ku mu bëgg mu fanaan ku bë ku bëgg ku mu bëggal mu fanaan du fanaan waaw ku mu bëggul fanaan mu fanaan du fa naan loolu fen loolu fen la day fen noonu la day fen ku mu bëggul fa naan waxuma rek uh-huh. uh-huh. ku mu bëggul fa naan du uh-huh. ku mu bëgg jinne yi dem si moom mu dem si moom fen na kon man xanaa jinne yi ñëw wax dëgg yàlla te man la fi bilee xoolal bu ñu ko tijjee ki mu gën a ci àddunaam di naan doo màndi suñu roi suñu sëriñ Cheikh Ibrahima Keita Ablaye bi ak Saliou billahi boo amoon eh, non Saliou Saliou xam nga may wàññi Cheikh Ibrahima Keita ku ko xam moo koy bañ nee naa ku ko bañ ku ne da ngay sarax douzaine de caleçon douzaine douzaine de caleçon ngay uh-huh. sarax ak libre petit cola uh-huh. yokk sa saakare bi day <laughs> jasa jasa nga war a dem jasa eh, mais jasa bu bon yow da nga nit ku baax kaay seeti jooju fu da nga yow bo nekké mom di avancer billahi wallahi xolam bon bu ma ndax iñaan billahi nekkan muy avancer sa xol bon laaj ma laaj ma salim ah. xam kan mo torox ah. ku top ci ginaaw nit naan nit da torox da torox da mm-hmm. torox waaw mom dafa torox mom mo torox deug la ndax dafa bëgg mom nu mel ah. lañu bëgg mel té torox tangé wi té ñun torox tangé wésuul mo salim moy di wax nit lo xam du deug wax deug ya té amul ak di fen mm-hmm. di sos ak di sos mm-hmm. ak di rambaaj. Ah. ak di jaxase. Ah. gis nga. Ah. gis nga nag. waaw ki koy jox xibaar gis nga nag. Saalum ki koy jox xibaar. waaw ci Cheikh Ibrahima Kay. waaw naan ko lii kooku day fen. góor jigéen la dëgg la. xaw ma kan moo leen jox seen. xibaar day fen. da nga ne Cheikh Ibrahima Kay daa jaay oto bi daa jaay oto bi. bi bi dafa génn mais bu ñu man maa ngi vidéo oto bi léegi man maa ngi. yow nga ne Cheikh Ibrahima Kay parce que dañuy wane ne ñun Cheikh Ibrahima Keita dañ ko respecté suñu kilifa la. mu fekkee suñu plateau ko mu dégg nga voleur li gën a na lay. ko yónni. Eh, dimbali ñu waaye xam ah. bi ñu dee moom la dem li jënti ah. émission yëgu ko ah. waaye moom bu fekkee moom gën a loolu moo wax daal non garaawul non non garaawul. ba pare liy wane ne xol bu bon ak soxor am na. Mhm. Cheikh Ibrahima Keita ji bi Dramé dafa ñëw ne ko yow yaay roi Mandeng yow yaay xalifa Mandeng yow yaay xalifa général Soundiata Keita. man ji bi du ma way keneen ku dul yow Cheikh Ibrahima Keita yow yaa ma ñor. soxor weesuwul ngay woo di yaay ji bi pour jibi ñëw ci yow kooku ne la jibi àdduna du yàgg ba mu ñëw ci yow. nga ne ko kaaw dama soxlay xalamkat kaaw ne ko cinquante milliards de francs CFA boo ma ko doon jox. Ah, cent ans du ma ñëw ci yaw ne dama lay liggéeyal lool. Cheikh Ibrahima Keita Djiby Dramé woote Grand Théâtre nekk yow laa tuddee nuit du bassin. mu fees moom moom mu fees del. mu fees del Cheikh Ibrahima Keita jël ay may Djiby Dramé. jàppale ko ci bis bi jibi ne ko Cheikh Ibrahima Keita li mu ko defoon a sa xol di ko wax la première fois la la filtré yaakaar naa ni mën a too ko jot fenn mm-hmm. nga fexe ba am numéro kaaw kaaw tam yaakaar a ko jot fenn ndax na na pour pour kii way ko comment dire encore Jaliba ko yaar mu ne bu dee une minute sax na ko Jaliba way boobu nee na Jaliba yow la xam Jaliba du la way pour lan lay wax jiw jiw moom lay wax. mu ne ko dimbali ma ma ci Adama Baro maire bi ne ko doo ku ma yóbbu foofu. dégg bu bon yow sa xol dafa bon doo nit. non ñun dañu xam ne billaahi dañu xam ne. billaahi wallaahi yooyu yow xanaa xamul ne daa ko def moom ma yenn preuve yaa ngi fii xanaa xam nga eh, da ngaa bëgg ñu waay la xol bu bon yow da ngaa bëgg ñu waay la xoolal da ngaa bëgg ñu waay la kenn waay la xaaj waay la eh, borom zàkkare bu gàtt bi ay borom zàkkare bu gàtt bi koo takk mu daw loolu lay waay da ngaa ñàkk jom amul dara amul dara sama xol du rek kala soo non pour mu gudd yow yow yow da nga nit ku baax yow da nga am dara yow Cheikh Ibrahima Keita daal mooy le roi Mandé loolu nii kii nanga. Ah. loo ko di kii de du jot a kay da. ah, ah li mooy daga xol bi lii. waay waxal waay. lii mooy daga xol bi. dinaa wala lii lii. ah Cheikh Oumar. roi du Mandé. le khalife général du Mandé. wala dogolu nyana baba nyame namu amede na dogolu nyana mande atame na dogolu bela no defo duawude imana do komina abeke kowaye imana bo komina abeke koda molonye bila yuwata isoguma keita jalike bo yoroni na abo siko maru ye ka aka aw cince kumabaw ma parce que aw bi cɛŋanaw yɔrɔ dɔ lahara ko tɛ para ka mi baara la de ma wolomuso sɔnnen den bannen do daga sunɔgɔ ma sekumaru k'i para la jama ŋa mina kɛ aduna du yàgg ba ñu tagg la waykatu Malien yëpp taxaw amul sàngare ku ne ñu way Cheikh Ibrahima Keita ci kanam ñoom ñoo ñu jël micro way Cheikh Ibrahima Keita sëñ bi doo dara. Salim doo Salim billaahi wallaahi doo dara. Salim dañu lay xaaral benn. ak ku koy jéem. bokkul bokkul Cheikh Ibrahima Keita xaw man. Eh, Ahmed Cheikh Ibrahima Keita turam bi dafa rëy. nee naa la am tagi fi Ablaye ngi fi Salim a ngi fi. dawul ñu dawul dawul ñu bàyyi. ñu lay xaaral sëñ bi. wuy ma. ñu ngi lay xaar doo jàppal suñu self rek toog. nekk ci liggéey di liggéey di liggéey liggéey bu set. te incha allah suñu procès day xam dara. Uh-huh. te wuy ma te liñ doon liggéey dina daw ci télé. incha allah monde yëpp dina daw. Eh, incha allah soobee yàlla ñu ngi leen dox gaje. sëñ bi waajalal sa bopp waaye. ñu ngi ñëw. Uh-huh. ñu ngi ñëw. Uh-huh. te buñ ñëwee. ay buñ ñëwee. dara du yomb. ay buñ ñëwee. kay. le roi Mandela le marabout du peuple l'incontournable le meilleur de sa génération le phénomène Saliou ah, ah. eh, eh. wallaay doomu jaamu ko yéene toox yaay toro wallaay yaay toro danoo ñu danoo tedd dëgg la Saliou danoo tedd Saliou ñu danoo tedd hmm. hmm. Saliou kon ci bu ñu yëgee télé si Ibrahima Keita bi mu def wallaahi day gas suuf si dugal ci boppam yow boo yëgee télé bi nooy def. day gas bu télé bi nga xam ne daal yëpp nekk di liggéey. yow boo yëgee télé si yow am. xam di toppandoo ñun bu ñu defee plateau mu def plateau. ñu def témoignage mu def témoignage. te benn théâtre bu xëy def mu def théâtre mu gis a douze personnes. ñaari ñaari nit dafa nekkoon. parce que li mu noonu ñaari nit dafa nekkoon. moo tax ñu nekk borom borom nee na nee na moo doon yor gàddu koor yi borom 35 gàddu koor yi borom 10 gàddu koor yi bu mu nekk nii ñaar sax desewu ko. ñaar sax desewu ko. <laughs> léegi ay jur doon lay doon am na ñoo ko nekk am na ñoo ko nekk. ñoo xam ne ah. ah. leen dàq seen kër. Oh, amuñu njëriñ seen kër amuñu njëriñ seen kër. allah oh. amuñu njëriñ seen kër. ñoo leen seen ibrahima gën a jàppale leen. dèjà ne ñoom. non non buñ demee buñ demee buñ demee buñ demee buñ demee buñ jógee fii fan la ñuy dem. Mm. ay espoir ñoo xam ne dañoo seen espoir dafa jeex. maanaam moo tax. Uh-huh. caga ji nga fay gis. Uh-huh. Uh-huh. fekk. Ah. ñoo xam ne tekkiwuñu dara nga àdduna yàq ci faj rab. wala ñuy faj jinne. di ko mbag di ko door na ñu koy def pour wér. wante moom da lay xool rek nga wér.